xam nga yoon. Mhm. mën na réquisitionner samay téléphone mhm. mais Ousmane Sonko bi ñuy jël maanaam ay téléphone am léegi léegi suñu génnee foofu aussi tamit débat politique bi ni ko ni aussi ci ci Sonko euh, barricade bi ñu ko defee këram loolu c' juste un point mais li ma bëggoon dégg ba léegi waxoo ko waxtaan yi nga xamante ni moom ngeen sekk gars yi waxtaan ah, ci suuf te ngeen bañ ñu ko avoué xam naa dinañ dinañ ci gën a ñëw parce que tamit am na loo taxaw na fii nii ci kanamu Sénégal yëpp déclaré que ne ñoom pare nañ ànd ak yenn euh, famille chef religieux yi ñoom entamé des pourparlers ngir rek euh, lépp yi nga xamante ne daal na koo xamante ne ak politique nga fare ci opposition bi wala sax nga nekk activiste wala nga ame ay daan te ñu ne sa opinion ci wàllum politique moo la ko moo la ko may ñu daal di euh, ñu daal di fexe na nga mën a amee li nga xamante ne moo di moo di sa nga jotaat sa ak ak sa yelef kaaw Cheikh Bara Ndiaye ñoo ko doon ñoo ngi ko doon ñoo ngi waaye nag jot nañ ci xibaar que bañ bañ na ko daal di bàyyi. Mhm. yéen nag Cheikh Bara yéen ba léegi officiellement bokkul. bokkul bokkul ci Pastef mais mun na mun na leen koo bañ tamit ndax nekk na koo xamante ne tey position yi ma am ci Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne dafa leer moom la àndal. bon moom mën nañ moom waaw waaw loolu bëgg na bokk. waaw léegi <laughs> léegi dafa jël liberté wu a bokk. Mhm. te man jàpp ma benn yoon ni. Mhm. Bara day défendre Ousmane Sonko. man dama jàpp ni. mais jamono jii la koo xam mais kàddu yu wax mun a wax ci actualité mais li mu doon wax ci actualité jëm rawatina ci Ousmane Sonko koy défendre mais est-ce ko ah, moo ko jural li ko mu man nag su nekkee dégg émission bu mujj bi Cheikh Bara était pour le dialogue Cheikh Bara dafa doon proposer ni moom mën na organiser wu ànd seeg ay nit seeti Ousmane Sonko pour yóbbu Ousmane Sonko à la table de négociation mu dialogue te pourtant dañ ko jàpp. la émission bi mu waxee lool. émission ci biir émission la ko waxee mais am na la. non waxul leneen. <laughs> non non bi amuñu amuñu autorisation jël vidéo jàmm. mais ko déggaat bu dee émission bi parce que xam nga tey Sénégal li métti yow da ngay toog man damay toog jàpp sama jël sama téléphone toog tapé Jérôme. Mhm. suivre la émission 30 minutes. Mhm. man mi lay déglu yow waxoo dara lu ma choc waxoo dara lu garaaw. ci yow ma sama kër yi non amul ci man. ñi ko seetaan ñëpp commentaire ah. yeeg yëpp da nga koy lire. ah mais eh, eh. mais mais Jérôme. mais mais gis nga mais mais mais li ngay wax. mais moo moo moo moo moo li ngay wax li ngay wax mu bañ a choqué. xëy na moo yow moo yow li nga may wax mu bañ a choqué. mais est-ce que du choqué ki nga xam ne moo yor wàllum yoon ak yoon ah. li dul yoon on n'a pas besoin du procureur de la République pour xam ko li dul yoon dañoo soxla procureur nit ñu li dul yoon. mais taxi aussi ñoom ñoo ko maîtriser. non non bàyyil taxi li dul yoon yow xam nga ko le bon sens est la chose au monde la mieux partagée yow mënoo déglu Cheikh Bara Ndiaye man ma déglu ko des milliers de sénégalais déglu ko ñun ñu ko déglu ñëpp wax dëgg yàlla ñi mën nga am ay critique ci émission beeg nangam ak nangam mais gisoo ni kii wax na loo xam ne faute la nga yeewu xëy benn waay jël visé ay article am ay délits yoo xam ne kenn comprendre te li ci métti dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy xoole délits yi yi ñuy gàll ci kaw nit ñi boobu ba léegi di leen doot ci kaso bi kan nga gis ñu àtte ah vraiment ba léegi nag. ñëpp ah. instruction lañ leen di yóbbu. et ça dure tëral la fa. ça dure tëral la fa ba heure bu leen neex ba naqari leen ñu may la LP wala boo defee six mois nga génn mais da toog ay nit toog ci télé di garaawal ndax la téléphone yi nangam mook nangam am na ay leeg nangam mais liñ lay tuddal yëpp doo mus a fekkee fu ñu tegee nit ñooñu à la baar di leen àtte ci li ñu leen doon waxal yëpp. c'est que ça c'est sérieux donc lay dellu si li ma doon wax rek mooy dañu am régime boo xamante ni dafay censurer une certaine opinion maanaam tey li nga xam ni mooy delli ci dëkk bi mooy bokk Pastef léegi Pastef li nekk délit ci dëkk bi mooy affiché ni man de Ousmane Sonko li muy wax ni man gis naa si sama bopp maanaam loolu délit la ci régime Macky Sall <laughs> ah ci naka loolu lañ toppee nit ñi ah non non non non non non quand même moo yéen toppee nit ñi de mm-hmm. loolu kese lañ toppee nit ñi toppee wuñ leen leneen. nee mhm. naa yi ñu ciy lim yëpp kan lañ ci àtte. ah pour l'instant moom amul ñi nga xam ne. peut-être peut-être dossier force spéciale. waaw ñaata tele nga daan jàpp journal 20h. ñuy invité ay nit ñu toog naan la centrale nangam. moom la ñu visé woon. ku ne di wax. Mhm. nga toog presse di xëy di chargé pendant une semaine li lay wan ni du du du lu sérieux da ngay gis presse bi leen doon chargé xam nga mën naa nangu. nga yor sa journal nga am information peut-être muy jóge ci autorité yi mhm. say kanu may la ko mhm. lu jaadu la ngay xëy mhm. di ci bind lu kenn xamul mais loolu bu weesoo xanaa yow en tant que média di nga organiser wu man Mamadou Ly bu ma yow woon ñu ne ma man terroriste la mais la moindre des choses quand même c'est de vérifier mon parcours mënumaa dëkk fii juddoo fii jàngee fii màggee fii ñu xëy ne ma man terroriste la ah. nit ñi maanaam kenn du jéem a vérifier man à quel moment laa ni terroriste kenn du ko vérifier à quel moment laa am ay fréquentation yu ma dugal ci man dañuy xëy rek ñu terroriste la ñuy xëy ci tele bi di répéter mhm. mais c'est pas sérieux d'accord man je connais ces gens je connais Ousmane Seck bi ñu tudd ci dossier force spéciale mu nekk bu baax yor jabaram yor doomam un an mi ngi ni mi ngi kaso Ousmane Seck apiculteur la ay yamb lay def di extraire miel formé ci xale yi bëri ñu ciy liggéey di ci am wecc di ci sutul grand fii la dëkk HLM Padoua xam naa ci keneen ku ñuy wax Bouna Ba Bouna Ba bokkul sax Pastef Grand biñ ko jàppee ci mbir yi ñu ne ñu Grand la dëkk ñu déplacé wu dem këram ci lañ ko xam seen un menuisier boo demee seen kër xamuñu sax politique bi ñu fay mujj waa këram lan lañ ñu wax ñoom mbirum ay Ousmane Sonko ak Macky Sall Bouna ci boppam. xamu ci woon dara et eh, boo demee kër ga à la base makiste lañu woon de fi mu toll nii ñoom ñu ngi daas seen carte di xaar de. <laughs> di xaar sanction ba fut. <laughs> léegi léegi d'accord léegi su ñëwee euh, ci euh, ci euh, seen parti Pastef instant yi moom mën nañu wax ne yéen yéen daas ngeen fanaanal seen i carte yéen ngi yéen ngi waajal seen bopp ci élection présidentielle bu ñu dëgmal waaye jamono ji nag am am candidat bu leer dese na leen dese na leen dese na leen wóor. lan si ana seen candidat. Ousmane Sonko. éligible naam bu baax. ci ban côté. am na condamnation deux ans de bu ñu bu ñu xam ne yoon teg na ko ci ci ndondam. condamnation ban. ah pour euh, nu ñu koy dee sax am affaire nu mu tudd corruption corruption de la jeunesse. gis digganteem ak gis nga gis nga ñun mbiru élection daa leer suñ bopp leer ci bopp sénégalais sénégalais xam nañ luy élection. ah mais mais attends élection nattukaay la. Mhm. élection nattukaay la liñ fay nattee mooy représentativité acteurs yi nga xam ne. nee nañ dañ bëgg jiite réew mi. Mhm. loolu leer na ci bopp Sénégalais yëpp. Mhm. Ousmane Sonko man gisuma lu ko mën a tere bokk ci élection mais xam nga lu tax. Mhm. dama koy leeral. xam nga lu tax gisuma lu ko mën a tere bokk ci élection yi. yow jàpp nga ni ñun ndawi Sénégal ñàkk nañ fayda ñàkk fayda gu toll nii Jérôme yow yaa toog sa bureau yow jël sa bic yow signé ne Ousmane Sonko du bokk. ñu lay seetaan muy dox. ah mais attends mais mais mais mais mais mais moo li nga wax nii. non dama lay laaj ndax gëm nga ko yow. Ah, su ma amoon doole jooju ma def ko su ma amoon doole jooju man ndax ma def ko yéen da ngeen toog di ma seetaan mais ni mu waxante dëgg tamit mais su fekkee yéen. mais attends mais wu ko bokk. mais attends mais mais moo. moo condamnation bi ñuy wax nii deux ans ferme. Mm-hmm. dossier bi jeexagul. waaw loolu benn la. waaw loolu mën nañ ko nangu aussi. bu Mame Mbaye Niang bi dossier bi jeexagul damay jël rek bu Mame Mbaye ndax ndax bu Mame Mbaye Niang bi ndax dugal ngeen ko am pouvoir de cassation pour peut-être ñu comprendre. Mm-hmm. li tax duñ ko nangu. Ousmane Sonko nee na Mame Mbaye Niang yaa dóor vingt neuf milliards yi waxewu ko noonu mais man maa ko bëgg waxee noonu. mais na ngeen ne Ousmane Sonko ko wax. Ousmane Sonko wax na lool. non duñ ciy daw. Hmm. des acteurs politiques Jérôme yow da ngaa jàpp ni bu ñu la dénkoon yow association bi ci koñ. Hmm. résultat yi ñuy xaar ci yow yow groupe bi nga àndal ñenn yéen de association bu ñu la ko joxee nangam moo ci ne ci xaalis. Hmm. di ngeen ci wut nangam ak nangam ak ndangam di ngeen ñu defal nangam ak nangam ak nangam. buñ toogee un an gisuñu ko. ñu gis la Jérôme ngay sañse waaw ah. jënd ci oto bu bees. commencé leer commencé leer. takk ñaar ah, jabar ay subitation du am. <laughs> mais ndax subitation aussi war na ci war na ci war na ci wékku ba ba accusé. mais Ousmane Sonko ah, moom li mu wax mais Ousmane Sonko li mu wax. mais su ñuy jimri li mu wax. Ousmane Sonko dañ ci doon xaar mu indi ci ay ay ay firnde ak leeral yu yu yu yu yu am solo. li mu wax kenn du ko dindi. gis nga le débat politique. Mhm. dañ koy animer. ay acteur politiques bu ñu waxantewul. Mhm. lu ñuy def. mais ci foofu aussi. xaaroon mais mais ci foofu xaaroon nañ ci foofu mu xaaroon nañ muy indi xëy na ay ay damay damay bàyyi Mame Mbaye dama am ñoo xam ne ñoom lañ dénk état bi. Mhm. ñu dénk leen ngay gérer. mu mhm. am ñoo xamante ni ñun dañuy opposé wu. d'accord wuñ ci li ngeen di doxal. ay yow nga ni mais kenn du la tudd kenn du la laaj xaalis bi kenn du la ni yaa ko jaarale fii. parce que pour moi Mame Mbaye avait une mais mais mais mais accusation ngeen def quand mais le gars il a le droit aussi tamit suñu ko accusé mu dem fa ma xanaa doon benn pour débat pour yoon atte aussi débat wu droit dama nekk dans les civilités en politique bu fekkoon lu acteur politique wax ñu plainte ko non géew gi kenn du fi des Macky Sall bu jiite réew mi mais fekk sooy wax da ngay wax loo xam ne. xëy na am na mais ak li mu nekk dëgg dëgg. mais ak li mu mais xam nga 2011. Mhm. Abdoulaye Wade dafa neexal magistrat yi jox leen ay terrain jox leen xaalis dafa daa Abdoulaye Wade plainte ko. mais est ce que loolu amu ci woon firnde tamit. non dama ni ban firnde la ci am. est ce que amu ci woon firnde est ce que dañuy laajte. Macky Sall nee na dinañ dajale cent mille deux cent mille jeunes def assaut conquérir le palais de la république dafa tax Abdoulaye Wade ñu toppee ko appel à l' insurrection. non ça c' est le débat politique. buñ ko garaawal. Mhm. gis nga Mame Mbaye Niang bu ma ne woon am. Mhm. mais ku toll ni Ousmane Sonko bu ma tuddee ci mbiru Prodac loo xam ne ñi ngi ma ci signe depuis ñetti at mënul leer ce sera une très belle occasion pour moi ma wàcc ci terrain bi ànd ak caméra yi wax xaalis baa ngi nii mu doon factuel dak itato su ma ñëwee taxaw foofu dinaa ni dugal nañ fi nàngam dugal nañ fi nàngam dugal nañ fi nàngam. Mhm. nàngami jeune bénéficié wu nañ ci projet mais ça c'est le nu muy def ci justice. bi mu demee ñu doon mais su nekk 200 millions lañ ko doon mais su nekkee ñaari acteurs politiques aussi aussi ñoo ko sekk. mais est-ce que est-ce que foofu lay politique moo laajul un acteur politique Ousmane Sonko ña ko fii lan la ko acteur politique yi tegal waa ku ci ñëw télé pour nga am promotion sax si kawam ngay dal mun nga dégg mu plainte kenn. Mimi Touré lu mu dégg mais moo ngi plant nag plainte dama ne acteurs politiques yi laa wax <laughs> les acteurs politiques mhm. yi nga xam ngi dal ci kaw dans le débat politique Mimi Touré dans le débat lu mu déggul dafa am ba dégg na lu bari moom maa gën a mu dàq raay Idriss lu mu dul dégg dafa am danga ah, mos a dégg mu plainte kenn ça c'est le débat politique mais bii wàllum ji ñaate la ak tamit non c'est le débat politique mam bay dal daan ñëw toog télé yor ay fëyam naan compte Idrissa Seck yi nangam nangam nangam kenn mosu ko a ça c'est le débat politique xam nga li ci am solo. Mhm. mooy ñu waxtaanee ko opinion bi amee ci éclairci ma mbay avait une belle occasion de montre que vingt neuf milliards yi moom taxewu ci laalewu ci et que réellement def na ko ci dagg mais man ku mel ni man foofu laa ko doon xaar xaaruma ko ci nga dem tribunal naan dañ ma sosal yow yaa yor suñu alal yaa ko gérer mais la moindre des choses quand même c'est de nous rendre des comptes pas ñëw taxaw naan dañ ma sosa mais lu xew ci tribunal bi moo gën a yéeme verdict bi dafa wàcc ñu dóor ko deux mois ak deux cent millions man deux cent millions ci diffamation mosuma ko dégg Mame Mbaye Niang nga d'accord ak man ni possibilité bi mu amoon ci interjeté appel mooy ci deux cent millions yi. te loolu la def. te loolu la def. waaw léegi procureur mi nga xamante ni moom ci Macky Sall la dépend ah mais mais mais mais ministère public aussi mais mais li ministère public aussi je finis mon raisonnement mm-hmm. moom mi nga xam ne neen ci Macky Sall la dépendre mm-hmm. moom lu ci yoonam ci dossier bi ba moom mu ne day interjeter appel ah mais yoon may na ko ko yoon may na ko ko parce que yoon may na ko aussi parce que su nekkee xam nga tey buñ définirul dara du leer mm-hmm. day jaxaso procureur dafa am opportunité de poursuivre waaw il est maître des poursuites loolu dañ ko koy nangul moom dañ ko koy nangul dossier Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko. Mame Mbaye nee na Sonko moo ma sosal yow jàpp nga ni yoonam mi ngi ci. waaw naka la ci nekk. ah moom moom nit moo ko ñëw àkk si. non xam nga li nga ciy déggee rek mooy ce n'est pas sérieux loolu nga ciy déggee maanaam ñun ñu yor état ñoom dañuy foo foo nag nekk ci ay foo. Mhm. maanaam xool benn nit ni non du bokk. Mhm. fi ñu jëm deux mille vingt quatre du bokk gis nga fi ñu taxaw ni ñoom du bokk ñun fa la ñuy taxaw ni leen day bokk par la force